nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi fiy seddoo ak yéen yenn ci xam-xami alquran ak i secret yi nga xam ne képp ku ci ngooñu rek yàlla dana yombal sa dund yombal say mbir yépp ci zaahir ak ci baatin tey jii nag dañoo ñëwoon ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe goo xam ne danay faral di gaar yenn ci doomu aadama yi rawatina góor ñi muy impuissance sexuelle nga xam ne feebar la boo xam ne daanaka ñu bari mooy seen jafe-jafe ci seen biir néegu sëy ba day faral di indi xeebaange ci seen diggante ñoom ak seeni soxna tey nag ñu indiloon leen ñetti sunguf yi nga xam ne képp ku ko jël jëfandikoo ko incha allahu yàlla mën naa laa defal jàmm ci loolu nga xam ne mooy sa tawat léegoo léeg nag dina am nu ñu oo di ñu wax ne mënuñoo yàgg ci seen jabar maanaam bu ñuy jëflante ak seen jabar diire bi ci gën a ndaw wala bi ci gën a bëri mooy benn minute jàpp ñaari minute loolu du feebar comme ni ma ko yàgg di waxe waaye itam diire bi mën naa gën a yàgg loolu nit mën naa def lu toll ci fukki minute ak juróom ba jàpp ñaar fukki minit buy jëflante ak soxnaam loolu nag mbir la moo xam ne dafay am lu koy waral ci nit ki am ko mooy xabbun xabbun mbir la moo xam ne doomu aadama bi bu ko amee dana mën a yàgg ci soxnaam bu ñuy jëflante ñoom ñaar loolu nag pour nga am ko dangay ut sunguf yi nga xam ni maanaam moom mooy sungufu was wasóor sungufu timin timin sungufu fuuf garabu fuuf ak sungufu nebedaay ñeenti sunguf yooyu moom ngay jël boo ko jëlee dangay bind fatiha bax kullu aaya nasra fatiha baxda kullu aaya alam nasra soo noppee nga bind yaasin wal quraanil hakim ba bi jeex ci biir yaasin am na juróom-ñaari mubiinun mubiinun boo yegg si da ngay ubbi miim bi nga dugal fa xabbun ba muy juróom-ñaari yoon xabbun ba muy juróom-ñaari yoon soo noppee loolu ngay def saafara muy faatiha ba'da kulli aaya alam nasra bi ak li nga xam ne moom mooy yaasin boobu nga xam ne da ubbi juróom-ñaari mu miim yi nekk ci mubiinun def def fa juróom-ñaari xabbun moom saafara nga koy def moo ko ak ñeenti sunguf yooyu ñu leen wax di ko faral nag di ko def ci kafe wala nga koy def ci looy lekk di ko lekkaale wala nga koy naanaale képp ku ko def insha allahu di nga gis yokkute di nga gis changement tamit ci sa wàllu bopp ci sa wàllu diggante sooy jëflante ak sa soxna ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp ñu nekk ci prison yàlla na leen yàlla génnee ñu nekk ci lali hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin saydina muhammadin wa ala alihi wa sahaabil ajmain mbokku jullit yi mbokku internet yëpp ñu ngi leen di kenn ku ci nekk ci turam ak santam di kontaan bu baax di ñëw ak yéen ci seen beneen numéro ci seen chaîne bi nga xam ne mooy coranique les grands secrets nga xam ni waxtu wu nekk ñu ngi fiy séddoo ak yéen yenn ci xam-xami alquran ak i secret